ku xam forum civil di nga organisation boo xam dafa jóg pour xeex corruption guerre maanaam jéem a ba nga xam également promouvoir bonne gouvernance fexe ba nga xam ne alal réew mi ak fu mu mën a jógee naka lañ koy fexe ba mu ñoŋ ci loolu euh, ñu gis ne le président Diomaye Faye euh, def na sortie premier sortiem décliné ay priorité ci priorité dafa ne moom dafa jóg pour xeex guerre xeex corruption ñu ko si jaajëfal ñu ko si jaajëfal di ko jox yóbbal parce que code de transparence dans la gestion des finances publiques ci point 1.7, point 7 ci annexe ba dafa ne gouvernement bu de président de la République bu bees bu ñëw da état des lieux sur les finances publiques càmbar budget de fonctionnement càmbar budget d'investissement càmbar endettement bi pour xam la situation bi après bu ñu ko paree cour des comptes audité ko après nga jébbal ko askan wi du samay kàddu c'est le code de transparence dans la gestion des finances publiques moom moo ko wax moo tax njokk le président de la République monsieur Diomaye Faye deuxièmement il y a 4 quatre euh, mois de ginnaaw quelques mois ci Le Sénégal dafa am ay loi yu Il a xam dafa pour prévenir corruption et pour pour la corruption Il na ci li wax la loi sur la déclaration de patrimoine donc li ñu ñaan le président Bassirou Je Faye gannaaw donner un exemple en tant que candidat la loi de ko ko mu def déclaration de patrimoine de rappeler ne en tant que président de la République également on na def une déclaration bu préfet prestation c'est pare On a une beneen déclaration auprès du conseil constitutionnel donc comme mon mot def loolu noonu ñu ko si jaajëfal mu nekk lu rafet appliquer ci nous mu euh, euh, euh, la loi sur la déclaration de patrimoine ba nga xam ne ministre le président la yeeg la direction le gestionnaire de fonds y gestionnaire de programme y avons ñu def déclaration de patrimoine ci nous mu waree pour mu nekk également ci nga xam ne la wax comme priorité xeex corruption war naa jëmmal li le pôle judiciaire financier benn loi boo xam ne modifier code pénal code de procédure pénale en juillet 2023 ñu teg ko te ci pôle judiciaire financier boobu am na wax le parc national financier C'est comme le président Bassirou Bassirou Diomaye Faye bëgg na xeex corruption na fexe ba nga xam ne pôle judiciaire boobu noonu mu ànd ak parc national financier na fexe ba am ay nit ñu compétent na fexe am ay moyens financiers yu doy na fexe am ay moyens matériels ba nga xam ne luy redevabilité ak xeex corruption je pense que début là pour que le pôle judiciaire financier boobu noonu am parc national financier mën a euh, tàmbale xeex également ci wàllu ci wàllu guerre maanaam xeex également wàllu ñàkk redevabilité ñàkk joxe rapport beneen fànn mooy ci wàllu rapport yi li ñuy wax absence de redevabilité loo xam ne dafa tumm ranke bu baax a baax baax ci gouvernement président Macky Sall te di ñuy ñaan que le gouvernement euh, le président Diomaye jëmmal ko parce que vous xoolee cour de corps de contrôle yi fi nekk cour des comptes depuis 2018 daanaka joxuñu benn rapport soo leen waxee dañ naan la rapport yi pare na mais ba lu wax publier ko ñu nous seen téye loxo 2018 amel rapport sénégalais 2019 2020 2021 2022 2023 nous fexe ba li nga xam ne saytu nga ko ci àll réew mi nga jébbal ko askan bi neem ñoom ñoo ko moom euh, OFNAC rapport. ARMP devenu ARCOP yore nañu rapport waxtuma IGE nga xam chaque année il war a def wax sur euh, euh, un rapport sur l'état de la gouvernance et la réduction des comptes moom tamit yore nañu rapport. am na wax également le fonds force Covid 19 NAM. enquête bi nga xam ne commencé nañ ko war nañ ko tàmbali war nañ ko war nañ ko eggali ba nga xam ne Sénégal lañ xam fonds boobu noonu euh, ñañ ñoo ko gérer ak yéen faute lañ ci def mais damay rappeler encore une fois fonds boobu dañ 1000 milliards la.